avant tout damay wax ni macha allah ci moom macha allah macha allah di Pape yàlla na ko yàlla la fal cat ndax Pape Cheikh maa ko jur mais meeru ma benn yoon ci moom ndax depuis mu am 12 ans la ma commencé teral bi mu amee 12 ans dañ ko daan fay RTS cachem day ñëw rek ne ma yaay am su ma ko nee loo ci jël jël ci nga jox ma li ci des mu ni ma yaay duma ci jël dara jëlal yow man soo amee rek. baax na man soxloo ma dara te booba ba léegi yoon boobu wàcc ko ba mu amee 12 ans ba léegi mi ngi ci ay 32 ans peut-être wala 33 ans ba léegi yoon boobu wàcc ko. li muy nekk nekk mag balaa mu ciy laal dara day ñëw ba ci man ne ma yaay xaalis baa ngi nii maa ci jël lu ma neex dama ci jël lu ma neex ba nga xam ne sax loolu dama ko tuddee salaire. ba mu nekkee xale ba léegi bàyyiwul lool donc dañ koy ñaanal yàlla rek anniversaire bi dama ko ci ñaanal yàlla yàlla may ko cent onze ans sans ordonnance ni souffrance ni malchance yàlla defal ko gudd fan ak wér may ko wér gu dal di ko wax nag na dolli persévérer parce que seen liggéey metti na seen métier bi metti na mais na dolli rek lu mu ci dolli rek doyul di koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla jàppale fi mu bëgg a yegg yàlla na ko fa yàlla yeggale moom ak ay rakkam ak ay magam Pape jàllo Diallo ma ne joyeux anniversaire. waaw Pape Cheikh de li mu ci mën a wax euh, bare na ba nga xam ni mën nañ toog fii ba suba di ko wax. Pape nag eh, xale bu baax la xale bu yaru la xale bu ñu déggal la ndax dama ko jël. Euh, taftal ko ci ay magam mu respecté magam yi Pape Cheikh bu nekk ak frère am yi nekk ak sœur yi euh, macha allah alhamdulilah rabbil alamin jàmm rek lay doxal ba ci biir kër gi jàmm la fay doxal day kaf day fo day ree bu doon sax ñëpp dañuy kaf di fo heureusement nag affaire boobu nag moo nekk ci sama biir kër gi ñoom moom bu ñëwee ba togg ak frère am yi Euh, man sax damay ñëw nekk seen biir mais dañ may considéré comme seeni i morom te pourtant seen bàyyi la considéré ma waxtaan ak man kaf ak man foo ree dangay ngay ree daal man euh, loolu la mun a wax ci ci Pape Cheikh il est humble il est très humble Pape Cheikh ay su toppatul sax affaire yu succès yi moom respecté na ndeyam respecté na respecté na sax xale yi ndaw yi euh, ma jox la benn exemple xale bu ndaw mën na ko téye fii léegi par rapport ak mag li ko grand frère am di Pape Balla di jox wala Karim di ko wax moom lay def sërëm yi aussi noonu leen def waaw moom euh, amul amul amul amul grande sœur mais petite sœur la yor mais ki topp ci moom petite sœuram bi moom daf ko teg comme grande sœuram ba nga xam ne dafa woyof waaw Pape Cheikh nag moom ci xalelam dafa bare bari na ay jaar-jaar ci xalelam nii rek mais au niveau di du camp Abdou Diassé ba ñu dëkkoon ndax euh, su ma ko su ma dama leen daan bëgguma woon sax mu def fi affaire journalisme yi ay affaire animateurs yi mais il avait ça dans le sang dama ko xooleen di ko bëgg man sa kër ga sama xale yi sama doom yëpp maa leen di jàngal maa leen jàngal ba ñoom ñëpp ñu am seen i diplôme yi maa leen di jàngal à la maison. Euh, Pape Cheikh da daan def bu nekkee ci biir néeg bi sax su ma fi nekkul jël na benn genre micro ak kiiwu yaay yi nga mu tudd sax kasetu yaay yi dem jënd ay kaset di di di enregistré ay kii di wax comme journaliste. di def affaire journalisme ma xam ne kii affaire journalisme moo ko neex su ma ne ko jàngal. day dem ci néeg bi di jàng bu mu yàgg rek ma xaw a absenté tuuti rek mu nekk def affaire journalisme di jël micro fii di enregistrer ay voix di def ay affaires yoo xam ni ma xam ni kii destinéem fee la am na nag benn ci xalelam am na loo xam ne loo rek la mën mën na ko bu baax il suffit que mu lire benn texte rek da koy mémoriser moom noonu lay jànge à la maison ay mais na lire rek bu ko liree nii jeex na da koy teg Pape Cheikh mu ngi ñuy toppatoo mu ngi may toppatoo toppatoo ndeyam di toppatoo i frère am yi frère sax ñu ngi def bu baax ci biir famille mais moom Pape Cheikh ndeysaan dama koy wax rek macha allah di ko ñaanal gudd fan wér-gu-yaram te boo demee ba am sa ñaari jur ñu kontaan yow man de gisituma ci dara lu dul yow dawal dem ci kan dawal dem ci kanam rek ñun nag. kontaan nañ ci moom man mii di wax ak yow mënu ma toog le matin may premier fan sama ci seen télé bi may premier fan sama waaw damay toog di ko suivre chaque matin même bu bu ñu ko ma koy suivre mu def benn erreur bu ndaw sax ma gaawantu yónnee ko benn message ñu ko tu as fait ceci tu as fait cela c'est pas bon c'est bon et cetera mu lire paisiblement xam li ma wax lan la Pape Cheikh Diallo maa ngi lay souhaiter un joyeux anniversaire euh, nga dund ay ati ati ati at nga dund ko maa ngi la koy ñaanal baax man sa baay sa yaay itamit ñu ngi la koy ñaanal di la ko ñaanal bu baax sa doom a ngi fii ci man aussi maa ngi koy ñaanal gudd fan wérgu yaram mu nekk ak man guddi ak bëccëg ndax li may ñaanal moom rek doom ji rek li may ñaanal man mhm. ah man macha allah sama turandoo bi doomam man la ko tuddee mais damay toog mën ma danaa la jëndal lii danaa la jëndal lii pam damay lii léeg ma dox ci moom ci ànd ak dugg sama biir Europe di dem mu ne papa 4-4 bee bëgg ko ma ne ko waaw bëgg nag mu ne papa bu ma liggéey dinaa la ko jëndale ma ne ko waaw alors dama ci kontaan lool di ko ñaanal gudd fan wér gu yaram Pape Cheikh man de sa papa kontaan na ci yow sa yaay kontaan ci ñëw yàlla nga dem ca kanam bu baax a baax a baax a baax.